ñu la def àndoo ci wante dëgg la ñun nag décidé nañ dëgg la amuñ dara lu ñuy corriger donc loolu la su boobaa tool yi dafay continuer di amaat. mais ci wàllu droit moom dootul amaat. couvrir naa fi dinoo Alex jamono yu xawul la yàgg tuuti dañu jox ñu dossier waaye Ousmane Sonko euh, Macky Sall dañ si bind livre. naa ci bind livre bu rëy sax. bi. Mm-hmm. ndax euh, changé données yi ndax neen day def troisième te waru ko changé Afrique moom dafa war a bàyyi caaxaan africain fii rek ngay dégg ñu naan troisième mandat ci Afrique doo dem France nga dégg Macron bu koy waxtaanee Macron xam na ne pare na ci mandat bi dootu ko waxati Barack Obama bokkoon na président américain yi gën a am daraja yi gën a siiw mais dafa tere nga xam na ne mënul def troisième mandat et pourtant bu dee wàllu liggéey rek. bokkoon na président américain yi gënoon soxla Adama Barrow aussi bu mu def erreur li mu doon reproché ki nga xamante ni moom mooy Yaya Jammeh Yaya Jammeh dañ ko reproché que ne da nga nekk dictateur élection organisé wu ko mu leer mais Adama Barrow mu en 2017 moom moo ne su ma toogee benn mandat rek lay def. su ma paree pare naa si mandat boobu loolu mu wax weddi na ko defu ko. te moom saa bu xoolee si Yaya Jammeh mi nga xam ne dañ koo nara a ah loolu rek war na ko doy leçon ah. bàyyi ko rek te te moom te mu fàtte nit fii la lakkatu woon. c'est c'est ça te il faut il faut. que te bi yoon ki ko nar a lakk sax moo amul fu mu jëm. kan mooy kenn Macky Sall. ah waxuma tuur. ah Macky Sall mooy la xaar. <laughs> genre. <laughs> Adama Barrow moom. li ko a lakk sax moo xamagul fu muy taxawee. Macky Sall ay mbiram leerul ah, waaw. waaw ay mbiram leerul moom wax dëgg fa yàlla jaratul muy basé wu si kooku na wuti yoon mu gaaw. si ton protecteur n'est pas dans de bonnes dispositions, ah. le protéger ne peut pas espérer de. trois points de déet man waxuma waxuma tur. bul bul dugg si day demaat kenn demoon na de diggante bon africain yi Macky Sall la bokk. dundee yaakaar. bon rafet rafetlu naa ko waaye du ñoom ñooy indi solution quand il faut le dire. Euh, tubaab bu ñuy jotee nañu bàyyi tubaab yi ñuy jotee ñun noir yi nañuy gérer suñu cas. déet déet tubaab yi ñoo fi dakk lijjanti suñuy problème waaw waaw de xamul tax dafa am nu ñuy tuddee l'union européenne ak lu ñuy tuddee l'OTAN moom lu ñuy tuddee le G7 ak le g nga ñun ci place ñun ñun amuñ fa benn kàddu il y a ce qu'on appelle euh, sécurité euh, bu euh, ONU conseil de sécurité de l'ONU li mhm. nga xamante ni génnoon na fi taxaw ñu voté benn ce qu'on appelle xamu nuñ ko tuddee sa ñoom euh, xaw ma lan urgence pour ñu euh, fexe ba résolution voilà résolution lañ doon voté mhm. ñu ne dañuy fexe ba Euh, dakkal guerre bu nekk ci Russie bi réew bu àndul entre Russie ak Ukraine bu ci àndul ñu attaqué ko mais ba tey état wu Sénégal dafa maandu woon Sénégal dafa naan ñun ay neutre lañ léegi ñaari nit di jote nga ne nga neutre nga neutre xamul ñaari xale di jote dóorante xeer nga ne wooyu ma neutre laa damay bañ ma àtte wala ma far même bu dee xam nga ne faama moo tooñ mais da ngaa non ma wax faama moo tooñ di préfère observer taxaw di seetaan loolu am na doo complice léegi bu ñu gaañee faama te nga xam ne faama ummi moo ko ëpp doole te ummi moo ko tooñ au lieu nga ñëwoon ay eh, ummi bàyyil caaxaan nga ne faama léegi yow yaa non damay seetaan mais kii ne di pas exactement que kii moo tooñ te moo tooñ mais yaa ngi jàppale ku tooñ. Ah, yaa ngi que ragalu tamit faama boole ko si. loolu ragal lay ragal ragal day day day. day xaañe wërsëg ragal féete day. day xaañe wërsëg. day xeeñu wërsëg looy pourquoi du xaañe yow <laughs> ah, looy ragal. looy ragal looy ragal exemple non looy ragal looy ragal. ragal looy ragal. xeeñee looy ragal exemple. ma Macky Sall ñun bàyyi la ku la ëpp doole ragal. non je veux dire man lu mm. xam nga. dafa am Macky Sall lu mu defoon en en septembre xamu août 2022 mu dem fële ci Ukraine ak euh, ki nga xamante ni mooy Poutine mu ne ko dañoo bëggee nga libéré céréales yi céréales yi maanaam lekk yi nga libéré ko suur Afrique mën a dund mais Afrique ñoo ëpp terre ci Afrique ci àdduna bi mhm. Afrique lu ñu am ci terre cultivable que terre yoo xamante ni kenn dëkku si c'est des centaines des millions de de de d'hectares waaw léegi lu tax léegi mënuñ exploiter lu en tant que africain en tant que chef d' africain lu tax du ñu exploiter terre yooyu nga ne kenn bayu ko léegi nga jàpp ne yow nga nekk une population de plus de 7 milliards de d' africains nga ne Russie moo la war a dundal Russie daf la tal si nekk ci guerre ñuy toj tojate yow da ngaa mën a nekk fii naan ñoo lay dundal. jërëjëf <laughs> ñëw.